juma bu boole umma islamique bi yëpp ci benn kàddu ñëpp àndandoor màggal iidul adha di ci capitalu faydatu tijaaniya di Medina Baye bi juróom-ñeenti waxtu ti jot ba toftal fanweeri ci minit ci la imaamul akbar imaam Cheikh Tidiane Seydi Aliou Cissé yegsi ci jumaa ji. gannaaw xutba gi ci julli gi imaam Cheikh Tidiane Seydi Aliou Cissé fàttali na li nga xamante ni moo di jullit gi ngëneel yi nga xamante ni bés bi leen làmboo na ko imaamul akbar di xamle ne li ñu soxla dëgg ci bés bi du ay xar waaye ak ragal yàlla la. bu jógee ci yéen mu ne yàlla nag jarati tabaski yeeg yàppi tabaski yi du ko maye li koy maye dëgg-dëgg mooy ragal yàlla rek. bu ñu yàlla rek dal li am yàlla laay yi moko biral gannaaw bu mu daanale ay kàddu nek ci yëkkati kàddu ci turu xadara bi modi cheikh mohammedul mahi cheikh ibrahim Niass ndokel umma islamique bi mastawu leen ci coono yi xamné ñu koy dund ndax pandémie bi la di covid 19 fàttali ñi xamné ñom lañu dénk réew mi seen responsabilité ci sam karangi askan wi ndax lépp lu ngeen def rek mu dellu ci peuple bi

def ci ñoom itam waaye ci ñoom itam ngir ne loolu moom lañ leen fi taajee ngir ne loolu moom lañ leen fi taajee moom la leen fi yàlla taajee moom la leen fi bi taajee moom la leen fi bi taajee peuple bi nag li am pour yéen peuple bi nag am pour yéen mu leen koy defal comme ni ñu ko màggalee ci Medina bàyyi noonu itamit la ñu ko màggalee ca Touba Ndorong lew na ñi seen lew na keneen sañ bambara bërëb yi la yëpp kon jullit ñi teewoon nañu fi amal fi li nga xam ne moo di Eidul Adha ñuy baalu àq ñëpp te di leen baal àq di leen ñaanal yàlla nañu ko fekkee ay at yu bëree bëri